sëñ bi ziar na la. waaw maa ngi ziar bu baax a baax. tur bi nan la. Ibrahima Ibrahima laa tudd. Ibrahima da ngay suivre lamb. ba ma koy suivre bu baax a baax a baax. tey bi nga yëgee bi nga bi nga yëgee euh, annulation bi nga xamante ne annulé nañ ko combat yi waroon a am. non mais weekend bii noonu la ko dundee. waaw vraiment métti trop kenn warul woon annulé combat bi quoi. ndaxte combat bi produit facteur de production la quoi. pour dimbali jeunes yi la quoi. donc kenn waru ko annulé. waaw normalement vraiment rafetul quoi. waruñu ko annulé. ndaxte bu fekkente ni feebar bi moo tax ñu annulé combat bi. waru waru parce que ni ñaa ngi doog nit ñaa marché ñu ngi fu ne ñu ngi marché a ngi fu ne nest war a def mooy lii dañ leen dañu dañ leen war a protéger ko gars yi ay ay ay masque ku nekk masque loolu moo gënoon quoi bu ñu indi ay junni junni masque ku nekk masque combat bi mën na déroulé normalement mais waruñu ko annulé parce que bu ñu ko annulé loolu vraiment ah neexul ci euh, amateurs yi aussi neexul ci promoteur bi waaw surtout promoteur bi. waaw waaw ah, vraiment dafa dugal xaalisam foofu. xaalis yu bëri dugal ci. ñu ñu annulé combat boobu dafa rafetul. c'est pas normal. Mhm. Ah. léegi yow pour yow kan moo cee gën perte mbër yi mbër bi wala promoteur bi wala amateur yi. mbër yi am kii bi ak promoteur bi ñoom ñi dañ ciy perte. n'est-ce pas mhm. dañ ciy perte parce que du yoon quoi vraiment rafetul noonu quoi. Mhm. dañ ko war a organiser d'une autre manière. waaw ah. waaw mooy lii ñaan ñu indi ay masques gars yi def seen masque. n'est-ce pas. ku nekk masque. Mhm. bu ñu defee loolu affaire dina jàll parce que marché yaa ngi ni. waaw ñu ñànk foofu chaque jour di groupe. Mhm. ah. Mhm. foo dem rek ñu ñànk groupe boo dem ci tefes yi ñu ñànk ci foofu xale yaa ngi di di di a amul kii masque ko n'est-ce pas. waaw voilà donc waruñu waruñu ko baaree nii quoi waruñu ko waruñu def loolu dañ ko dañ war a bàyyi combat bi déroulé comme il le faut. am lu ñu war a am foofu am promoteur bi kontaan. waaw loolu moo gënal quoi. merci jaajëf sëñ bi maa ngi lay ziar baax. delloo ziar. Euh, yaa ngi waaw maa ngi suivre lamb bu baax. te bi nga yëgee annulation bi euh, annulé annulé bi ñu annulé am ci ci fan yi di ñëw noo ko dundee. est-ce na la lu ma metti la damaa metti bettu ma de damaa metti waaw ndax man ba ma ko njëkkee xool si journée Pape Sarr laa am lu ma metti trop. waaw mooy dañ ko yëpp te yëfu jaay doole lañ ko def. Mm-hmm. parce que mbëri mënuñoo togg seen i añ. Mm-hmm. préparé nit bu annulé la lambam wala nga koy reporté. Mm-hmm. war nga ko xam trois jours avant. mu ko mu mu mu wax ak góor yu mu ko sekkal ndax lamb yëfu góor la du yëfu góor yi baaw waaye goree di du du bëree ku goree doo bëree parce que yëfu góor la mais mbëri dañoo jël seen avance waaw yow toogu seen i añ bu Siteu mi ngi toogu lu mat cinq mbana nga yàq làmbam si noonu parce que waxuñu leen ko daf leen a bett waaw mais Balla Gaye mu mënoon nañ leen bàyyi mu bëre man Cheikhou Chérif Siteu rek dañ ko waroon bàyyi mu bëre parce que làmb ji dafay yàgg waruñu andi ne làmb yooyu waaw parce que mbëri itam daa am ñu yaakaar si ñoom bu toogee bëréewuñu fa teg ni yëg nañ yor avance ñu bëree yaakaar si ñoom mbër day sonn biir kàcceem ku soxla ku yor sa ordonnance sax da si mbër bi nga koy diis pour mu jàppale si lii dafa metti nañ bàyyi mbër yi bëree léegi pour yow ku ci gën a perte mbër bi wala promoteur bi wala amateur bi promoteur perte ma la parce que ay sponsor la signé mhm. mais tamit mbër mi tam perte ma am la mhm. parce que li def si làmbam mhm. tey yom Balla Gaye nii dépassé nañ ay millions di xaar seen làmb samedi waaw kon nañ bàyyi loolu bal yi moo fi am nañ bàyyi waxu corona nañ gars yi gars yi bëree eh man damaa seetaan benn vidéo bu ma metti mooy Màkka mhm. Kaaba gi mhm. amul nit te stade Touba fees dell ak nit mhm. nañ bàyyi nit ñi ñu bëree sport la nag bu ñuy sonal ak ay feebar waaye eh ay bi ziar naa la yokk ziar euh, tur bi tur bi Cheikh la Cheikh la amateur nga waaye bu mag waaw ñoo jógee ñoo dundee lamb bi ñu annulé non lamb ji ñu annulé du benn yoon par Sarr dañ ko jaay doole ba pare nguur ba ñoom ñu nguur gi ñoom ñu koy jéem a jaay ay ay ay virus yooyu noonu ne dañuy arrêté yeneen yi lii moo dul yoon nan bàyyi Pape Sarr yeggal lambam bi lii di yoon du benn yoon lii yëfu jaay doole dëgg la du yoon yëf yii nag barki yonent bi am na lu met trop ñu ñii di satal lamb feebar bi ngay gis nii ay siburu la bu ko yaakaar ne ay corona la maa lay delloo bu baax waaw tur bi waaw damay suivre làmb kay. waaw yéen amateur mu nga kon. Ah, waaw amateur laa de. te bi ngeen bi nga yëgee euh, euh, nouvelle bi annulation combat yi nga xamante ni annulé nañ ko combat yi noo ko noo ko dundee. na la. bettu ma de ndax li tax bettu ma mooy li li ñu wax rek kay dëgg parce que feebar bi tamit mënu fee am ñu bëgg a dajale nit ñi tamit ñuy def loo xamante ni tamit naka su noonu déedéet du yoon waaw loolu moom du yoon mhm. waaw. bu ma sañoon nag combat dina am parce que ñëpp a bëgg waaye nag am na loo xamante ni tamit bu tegoo nit ñi teg nit ñi teg ko nañ ko nangu rek te xam ne lépp ci yàlla la du ci ñun waaw. mais est ce loolu du du métti si promoteur bi ak si mbër yi nga xamante ne presque un an yi nii ñu nga préparé seen ay combat ba ba mu lu dul ay jours ñu annulé ko. waaw dina meti moom dina metti si ñoom ñaar ñëpp ndax li tax muy metti ci ñoom ñaar ñëpp ki joxe xaalisam ba pare dina metti ci moom. kiy joxe ki nga xamante ni moom la ñuy joxe tamit dina metti ci moom ndax li mu jotoon a yor yëpp def na ko ci ay débat débat ak yooyu pour préparer boppam kon nag bu ñu demee ba yàlla dogal lii. Hmm. nañ ko dogal nañ ko nangu rek te xam ne ndogalu yàlla moom kenn mënu koo bañ. waaw ah, merci waaw.